salaam mbokk yi safo F7 TV maa ngi béggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw ngeen information tàggat yaram yu gën a fas ci journée tey bi tombé le mercredi 22 juin dañ koy commencé foofu sa Angleterre ak club bi di Manchester United ñoom nag commencé nañu yeewu ci mercato bi ñu ngi ciblé joueur Ajax bi di Anthony ñu ngi bëgg fay ba 40 millions d'euros pour am ko. kon accord mu ngi waaj am si diggante Manchester United ak euh, Ajax Amsterdam pour euh, transfert joueur brésilien bi foofu sa Manchester United ba léegi ak United la des Barcelone ak Manchester United doon nañu waxtaan démb pour euh, transfert Frenkie de Jong waaye ba léegi nag accord amagul Barcelone ñu ngi laaj Barcelone ñu ngi laajte lu ëpp quatre-vingt-six millions d'euros nee nañ duñ jaayee seen joueur bi di Frenkie de lu néew quatre-vingt-six millions d'euros lañ njëkkoon di laajte. waaye léegi nag ñu ngi laajte ba quatre-vingt-six millions d'euros Manchester United lu ñu fayoon muy yor cent dix millions d'euros ak euh, ay bonus kon na ba léegi déggoo amagul déggoo amagul si diggante United ak Barcelone pour transfert Frenkie de Jong kii di euh, Rafinha bu Leeds United ba léegi nag euh, lëgum leeragul kenn xamul fan lay joué gannaaw waa FC Barcelone yeneen i club intéressé nañ si su mel ni Chelsea Arsenal ak Tottenham. accord am na si diggante Monaco ak Liverpool pour transfert kii di euh, Minamino transfert mun na dikkee Monaco 15 millions d'euros léegi officiel na kii di euh, Fabio Vieira joueur Arsenal la Arsenal recruté na milieu terrain Porto bi di euh, Fabio Vieira Romelu Lukaku dellu si am foofu sa Inter léegi mu mat accord am na si diggante Chelsea ak Inter de kii di Lukaku dina def visite médicale am semaine bii di ñëw pour euh, del pour ak Inter de Milan Chelsea da koy da Inter ba juin deux mille vingt trois salaire am dina jógee si douze millions d'euros dem ba huit millions d'euros kon huit millions d'euros lay fayeeku lay mujjee fayeeku ak Inter kii di euh, Mkhitaryan dina def visite médicale am ak Inter de Milan moom tamit euh, pour signer contrat Angel Di Maria mujjee na tànn si diggante Barcelona ak Juventus kon Juventus lay mujjee signé kii di uh, Di Maria dina signé ak Juventus benn atu contrat ak beneen atu option léegi officiel na kii di Mario Götze dellu si na club bi di uh, Francfort jóge na PSV signé ak Francfort ba 2025 Paris Saint-Germain ñu ngi waajal offre bu toll si 60 uh, millions d'euros ak bonus pour joueur Inter bi di Milan Skriniar waa Inter nag ñu ngi laaj ci diggante soixante-dix ba quatre-vingts millions d'euros pour bàyyi seen joueur bi dem Paris ak Nice mujjee nañu am accord pour euh, transfert kii di Christophe Galtier bi nga xam ne mooy entraîneur entraîneur u kon na dafa nekkoon na si contrat ak Nice ba léegi kon Paris fekkee nag da koo bëgg a recruter dina jox nis Nice dara kon na dégg nañu si somb toll si ya dix millions d'euros fekkee nag dara changé aussi diggante bi kii di euh, Christophe Galtier mooy remplacer Mauricio Pochettino si bangu Paris Saint-Germain Sénégalais bi di Pape Abdou Cissé bi nga xam ne contrat ma ko Olympiakos mi ngi war a jeex 2024 jamono yi club anglais yu bëri taxaw pour recruter ko Brighton Watford Newcastle Arsenal Leicester ak Everton pare nañu pour recruter kii di euh, Pape Abdou Cissé mu ngi jaar 17 millions d'euros kii di ba Mbañe moom la ñu def pépite de la saison foofu sa ligue maanaam daal si gone yi ko si gën a ràññeeku mu ngi joué vingt cinq match ak Olympique de Marseille dugal juróom ñaar bi def benn passe décisive kon supporter u Ligue yi ñoo ko def pépite de la de la saison foofu sa championnat France di Ligue final la coupe du Sénégal bi nga xam ne mi ngi war a dox si diggante Étoile Lusitana ak Casa Sport dimanche 26 juin lañ ko war a amal su 18 heures jotee final bi nag euh, stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio lañ ko war a joué waaye nag euh, stade boobu noonu police bi moo am ay yàqu-yàqu moo tax ñu mujjee toxal match bi foofu sa stade Lat Dior bu Thiès kii di euh, Sadio Mané démb la def visite médicale am ak Bayern Munich tey jii nii nag lañ ko war a présenté foofu sa stade Allianz Arena muy stade Bayern Munich kii di Sadio Mané nag dinañ ñëwaat si euh, beneen vidéo bu gën a yaatu gën see andi ay leeral si euh, transfert am